bi nag tey wax fii dina ci sawar ci ñaari cadre d'abord ci cadre gox bi ñuy remercier rek suñu frère boobu di Thierno Ibrahima si nekk ba États-Unis li def ko rendre ko pérenne di ko def chaque année le vingt dajale xale yi génn li mu am lépp partagé ko ak waa bi loolu aussi coutume la ci moom c'est un produit du mouvement associatif fii la yaroo fii la jànge fii la nekk député fii la nekk dëpp kon moom li mu si am mu tuuti mu bëri mu ngi koy delloowaat ci dëkk bi kon loolu dafa am solo war ko sant bu baax di ko gërëm mu ànd ci ak rakkam ñoom Pape Oumar Diafara Sy ñoom Kalidou Sy ñoom ñëpp ak sunu rakk bi nga xam ne nag actuellement mooy assurer la relève en tout cas ci gox bi sunu quartier bi ak taxaw ci Mbàkke muy Mbaye Babacar Sy di wax nag ne li am solo mooy li ñuy wax d'abord la participation communautaire mooy tey lii Thierno def dañu bëgg communauté bi jël seen loxo dugal ko ci li nga xam ne moom la ñuy def muy ci fànn yëpp nag kon ci affaire xale yi bu ñu jëlee dugal ci seen loxo jàpp ci président tribunal wax leen léegi dina ñëw fekk si leen fi kon lool wan nañ ne dañ bëgg impliquer population yi xam nañ ne sans les populations dara du mën a dox kon nag moo tax population yi affaire yi muy sur le plan santé muy sur le plan bu mu ci mën a doon rek ak yëpp ñoom seen implication dañ ko soxla dañu bëgg jege askan wi ci li ñuy def parce que li ñuy def askan wi moo ko moom loolu moo tax nag ñu ne lii Thierno def ànd ki rakkam association ak képp ku ci a servir loolu mooy tax ba xale yi mën a am ñëpp xam nañ ne Mbacke gis nañ fan yi jafe-jafe yi ñu am ci ay kayit problème kayit posé na problème kon yii amee déjà je pense que ñoom Mbaye Babacar si jël nañ ci président wax ñu démarré ko dans le quartier commencé fi def audience foraine yooyu ñu dajale xale yëpp ba nga xam ne koñ bi ba mu daj muy ko am doole ko mooy ñu am ak ko defee quartier par xam ne ci lañ démarré am fichier xam ne aussi xale yi judd woon à ah, ko encouragé di wax ne aussi buñ ko defee aussi moom lañ ko defal ndax ku wax affaire kay wax affaire xale wax loolu donc affaire mairie la. Sénégal dëkk la boo xam ne nii dafay yàgg taxawu ay ndawam yàgg leen fonk ndax convention internationale yi nga xam ne nii Nations Unies euh, ba ci charte africaine des droits des enfants bépp euh, loi wala convention internationale boo xam ne nii dafay défendre ak yelleefu xale Sénégal daf ko boole ci euh, ay loi ko ratifié ci assemblée loolu ci ay loi ba ci code pénal bi ñuy wax léegi euh, ci wàllu viol bi mooy ñoom maa ngi koy dégg ak yeneen ak yeneen xam ne ni lépp lu laal xale rek euh, Sénégal daf ci àgg taxaw def ci ay loi di ci dox ay jéego yu am solo ba ci suñu organisation juridictionnelle yi dañuy dañuy taxawee organes yi àtte am na juge des mineurs juge pour enfant man a commencé à Fatick nekkoon naa juge pour donc bu ñu ma woowaatee des années plus tard ci affaire damay xam ne mbir la boo xam ne yàlla moo ma ci boole ndax yoroon naa juge des mineurs tey ma ñëwaat fii nekk départemental mu koy woowee juge de la famille te famille bu ñu daa wax xale moo tax donc dañ ciy yàlla bu baax ci ñëw gi ak invitation bi euh, man euh, li ma ci man participer bari na waaye bu ci nekk euh, li say compétence rek nga man naa ko wax fii maa ngi koy wax ak directeur léegi bu Touba bi ma ne ko man pare naa dèjà na ngeen ma boole ci association donc bis ni ki tey man bokk na ci ba muy Mbàkke ñi fi féete ak Touba ndax directeur donc ñaari zone yooyu yëpp heure bu ngeen noppee muy fii ci bayal bii wala feneen fu ngeen ma woo ñu fi xale amul këy man je vais me déplacer avec mon équipe ñëw yendu ak yéen may ay këyit donc bu ma leen woo tribunal audience ngeen di yendu di sonn donc su ngeen ma ci quartier bi wala ci terrain bi ñu yendu fi comme nii ma ànd ak samay greffier ak samay secrétaire donc ñu may leen audience moo xam benn la ñaar ba ñett nu ngeen ko bëggee allah rabbi tant que maa ngi nekk Mbàkke man ak kayitu juddu dafa ma ñor parce que bi ma fiy ñëw nee naa ne jàngoro bi gën a metti bi ma xam ne bu ko réglé man nga ne sa mission mat na mooy affaire këyit yi donc du ma ci tàyyi du ma ci sonn donc pare naa daal pour fu ngeen ma woo ma ñëw jàppale leen ci këyit yi bu léegi bu ma woowee foofu également ay këyit man sama association la sama njaboot la bokk naa ci donc maa ngi leen gërëm. teewal ayemo Mbacké ayemo nag pour ñu ko xamul service la boo xamante ne ci ministère de la justice la bokk ba pare di toppatoo lépp loo xamante ne dafa jublu ci wàllu xale bu mu ba keroog muy am ñaar fukki at ak benn tey nag danoo am kontaante bu rëy ñëw uyu si invitation monsieur bi na association bi nekk na suñu partenaire de longue date le 20 novembre bis la bu historique ndax bis la boo xamante ne ay kàngam yu mag ñoo taxaw taxawal li ñuy wax convention des droits de l'enfant en 1989 Sénégal bokk ci dëkk yi ko njëkk ratifié en 1990 depuis loolu nag am na 30 ans plus de 30 ans même am na ay jéego yu bëri yoo xam ne jot see am waaye des na des na ndax buñ demee ba xale di dee ci feebar bu mel ne paludisme. wala feebar bu mel ne jaare wala feebar bu mel ne malnutrition defi bon donc des na kuwaat def nañ si ay sur le plan de l' éducation def nañ si ay jéego des na parce que am na xale yoo xam ne ba tey mënuñu am accès à sur le plan des violences faites aux enfants des na aussi ndax chaque jour bu ñu xëyee dégg xale bu faagaagal wala xale bu médical donc dafa laaj journée yu mel ni ñu célébré ko. ndax tribune la boo xam ne dañ ciy profité pour xool naka la ñuy boole waatee suñuy doole moo xam suñuy ressources humaines financières lëkkaloo yi ñuy lëkkaloo ak privé bi ak société civile yi comme tey association bi ba loolu noonu nga xam ne moo des ci liggéey bi ñu xool ñu koy ba euh, élaguer une bonne fois pour tout. événement ren bi moom dañ siy tënk cent pour cent réussite parce que liñ si doon mëbët lépp am nañ si lu kawe suñu njort en toute sincérité. parce que qu'on voulait avoir plus de cinq cent enfants pour ñu téye mbir mi li fi nekk tey dépassé na cinq cent enfants donc aussi li si ëppaat solo mooy message yi ñu soxla woon pour kilifa gi mën ko jàllale ci nit ñi jàll na le président du tribunal de Mbacké c'est la première fois nag depuis ñu sos association bi ñu gis président tribunal mën a déplacé wu ñëw teewe ci loo xamante ni journée mondiale des droits de l'enfant la adduna bépp di ko feetee ñun dong ñooy seule association bu koy féetee ci région de Diourbel pour pour la troisième édition donc ñu dem waxtaan si ak moom pour mu ñëw ca lancer benn message boo xamante ne day concerner état civil gone yi parce que xale yi ñu ngi jàng dem ba cm amuñu kayit xale yi jàng dem ba troisième amuñu kayit ñii di def ba am problème mu sax am ay kayit donc ci loolu lañ bëggoon message am mu accentuer ko si si kaw loolu nag am nañ satisfaction cent pour cent parce que promettre nañu dinañu may trois journées boo xamante ne audience foraine à travers l' association protection et partage pour les enfants audience foraine bi nag donc loolu c' est un plus pour toute la toute la population di département de Mbacké parce que même du Sénégal ndax doomu Mbacké ñu ni fu ne soxla kayit ñu ko am sera de très bonne chose boo xamante ni tey bu ñu ko lancé ci plateforme yi di permettre ñu ñëw dellu si mën a am bénéficié wu ci kayit yooyu ndax bëri na mag jëmm yoo xamante ne tey ñu ngi yeewoo suñu quartier bi amuñu kayitu judd am xale yoo xamante ne tey déwén nañu def CM2 ñii déwén ñu def euh, BFM ñi war a def bak amuñu kayitu judd dina permetre permettre allah rek buñ si liggéeyee le plus rapidement possible nag ak professionnalisme parce que nag duñ ñu may rek audience foraine ñu ñëw sorxo sorxo ko nit ñi sax duñ indi kayit yu mat il faut ñu sensibiliser askan yi lu ñu war a indi lan la ñuy doyee parce que léegi audience forêt il faut nit ki teew bu njëkk nañ ko daan def gis nañ conséquences yi ñu fi jur may la këyit nga dem jëli ay nit yeneen nationalité fu la neex ñëw dugal leen si raax leen si loolu aussi loolu la ñuy bañ comme moom il est il sera à notre disposition durant trois jours ànd ak équipe am bépp dinañ ko liggéey dans des quartiers différents incha allah rabbi donc maximum possible fu ñu ko mën a mayonnaise ba mu àgg fa rek ci nit ñi mën a am këyit dinañ ko def te xam naa ne aussi dinañ si gën a waxtaan ak moom gën si waxtaan aussi ak les autorités du quartier ak les bonnes volontés ak doomi dëkk bi parce que aussi déplacement yooyu du yomb même bu ñu mayee lépp tamit du tax ñu jël lépp parce que tamit am na loo xamante ne c'est le minimum il faut tamit association bi liggéey ci loolu bonne volonté yi liggéey ci loolu ñi nga xamante ne tey ëllëg dañuy soxla ndaw ñi ngir ñu doon dara ci réew mi il faut ñu accompagner li nga xamante ne président tribunal bi parce que nañu ko def association protection et partage les enfants